Ella se Jangan jëf euh, mbokk yi xarit ñuy euh, tewlu filé ci Gambian Talents TV dal leen ak jamm ci xibaar yi ci li ci gëna fess ci euh, ayu bés bile ku leen koy jukil sen xarit Mouhamed Mbaye Garmi xibaar dañ koy dooree rek li ci gëna fess bokku na ci rew mi Macky Sall wat na rek li nga xam rek modi di yamu yëkëti won ci kanam mu kii lee di euh, euh, njiitu réew ma woon di Barack Obama xam le na rek fii ak moom moo ngi doon rek njiitu réew mu rek euh, Sénégal li nga xam ne rek moo di ngóor jigéen kenn du ko fi rek daal di daganal ñu wax ci leneen bokk nañ ci rek bopp xibaar yi Y'en ak FRAPP ànd nañu rek ak askanu dogar ngir rek xex euh, bañu delo len sen euh, souf sinu euh, si lu rek mat ci fukki at ñogi non rek jox ko ay sa Maroc manam rek ay marocain sunu souf sunu bakan lol rek mod seni bak manam maanaam seen suuf seen i bakkan mbokk yi lii moo ci xibaar yi moy rek taxañu xibaar yi bu ngeen taxiloo ñu tàqar ko No hay Euh, jërë ngeen jëf dalati leen ak jàmm ci dëggi dëggi xibaar yi comme ni ñu leen ko rek euh, junjee woon ci ndorteel gi euh, bi dañuy wax rek ci nga xam ne moo di Adama Faye di rakk ci rek ki nga xam ne moo di président Macky Sall di di rakk rek ci Mariam fay di gorog ki nga xam ne rek moo di président Macky Sall daal dina rek xam ne ni ki nga xam ne rek moo di njiitu réew mi na daal di rek bàyyi xelam bu baax ci ñu ko ñi ko rek daal di wër waaye it dina rek wax ni moom dina rek dëggal li nga xam ne rek moo di candidature am ngir rek samp ndëndam ci élection élection locale yu jëm bu fekkee rek kii di njiitu réew mi li mu wax dàllu ci rek dellu euh, ginnaaw kii la di Adama fay moo daal di rek xamal lool euh, fi mu ko jaaree rek mooy rek ci ab bataaxal la daal di rek bind daal di ci rek joor ki nga xam ne rek moo di Goromba euh, di ki nga xam ne rek moo di président Macky Sall waaye lu jiitu loolu moom mi la di Adama Faye dafa yàgg rek di ñaawlu li nga xam ne rek moo di doxalinu kookee di président Macky Sall li ci gën a rek yees mooy rek li nga xam ne rek moo di wàllu doxalinam gi nga xam ne daf ne dafa bëgg doon li nga xam ne moo di ab dictature ci li nga xam ne rek moo di parti euh, APR euh, ci jamono yële yi ñu rek weesu daal dina woon rek euh, addu ci li nga xam ne moo di biiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci rek xam ne ni kii di président Sall gis li ñu nga xam ne rek moom lañ bëgg a def Ousmane Sonko moom mi la di Adama Faye daal di ci rek ànd benn yoon. ñu woy wax euh, ci beneen euh, xibaar euh, bokkoon na ci ponk yu ñu leen ci junj woon njiitu réew mi di Macky Sall àdduna ci rek yokkuk njëg gi nga xam ne rek dund dund gi maanaam yokkuk njëg gi nga xam ne mu ngi ci jaww ba yu Sénégal yi ginnaaw rek gars yi askan yu ba ñu ko rek ŋàññee daal di ko rek naqarlu waaye tamit njàqare yi ñi nga xam ne ñoo di ma réew yi maanaam citoyen Sénégal yi Sénégalais yi daal di rek xam ne kii di président Sall dafa jot rek mu daal di ci indi ab saafara ginnaaw loolu nag dafa mel ni nag mbir yaa ngi bëgg a neex ci askanu Sénégal kii la di euh, njiitu réew mi di président Macky Sall daal dina rek xam ne ni ay coppite dina ci rek daal di am mu jaarale ko rek ci ki nga xam ne moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi loolu rek la daal di euh, le ñu wax ci leneen ki nga xam ne rek moo di dawalkatub sëfaan bi maanaam camion bi nga xam ne rek moo mbëkkoon otop saabalkat yi yu leeral TV daal dinañ ko rek tëj atub kaso eh, ginnaaw rek ba nga xam ne rek daal dinañ ko rek atte ne dinañ ko rek daal di tëj li nga xam ne rek moo di atu kas eh, atu yàlla boo xam ne dina ko nekk rek fi nga xam ne moo di eh, ndungu siin ñu wax ci leneen jeneen jéye rek amati ca mbëkk mi maanaam ci yoonu gaal gi di tukki boo bu boo xam ne rek jurul jaarul ci rek li nga xam ne rek moo di yoon genn gaal gu defoon lu toll ci téeméer ak juróom fukki saa Sénégal maanaam ay sénégalais moo rek suux ca Maroc lu ci lu toll ci juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay sénégalais yi nga xam ne rek ñoom muccoon nañ ci loole daal nañ rek ñibbi ci file di Sénégal ñi si des rek ndox mi daal di leen rek yóbbu di ñaanal rek sunu borom xaare leen àjjana waaye mbëkk mi mi ngi wéy rek di def ay jée euh, fii ci euh, Sénégal ñu addu ci leneen ba tey comme nu leen ko waxee woon ca ndorteel ga yanamar ak ñi nga ki nga xam ñi nga xam ne rek moo di mouvement bi di frappe ànd nañu rek ak waa dugar ci ay feeñu maanaam ci ay ñaxtu euh, ci euh, caxat caxatee suuf ca foofee ca goyaar euh, ca fi nga xam ne rek moo dugar gars yi rek wax nañ li nga xam ne rek moo di yanamar ak frappe feeñu nañu ci dibeer ji ci suba ak askanu dugar way xeex ngir rek seen suuf si ñu rek joxe sa marok ba li nga booba léegi yi mat na rek li nga xam ne rek moo di euh, fukki euh, at yoo xam ne rek suuf ci ñoom rek euh, mënuñ cee jot boobu rek ñi nga xam ne rek ñoo di yaanaamaar dal di leen rek xamle bu nguur gi bëggul a gis yaanaamaar ak FRAPP ci askan wi na leen rek delloo seen suuf loolu la ki nga xam ne rek moo di kilifa ak Guy Marius ak ñi ñu àndal ci wax ci feeñ wi daal rek xamle ñoom nag lu ñu rek daal di duppee seen bopp mooy suñu suuf suñu bakkan maanaam loolu mooy rek seen pàkk ñu tëj xibaar yi ak njiitu réew mi euh, Macky Sall xamle na ni fii ak mooy don njiitu réew mi euh, fii ci Sénégal ngóor jigéen kenn du ko rek fii euh, daganal njiitu réew mi jot naa rek dalal ay kuréel yoo yu bari yoo xam ne rek nekkal diine ji fii ci Sénégal ngir rek waxtaanee li nga xam ne rek moo di wàllum ngóor jigéen bi nga xam ne rek kii moo di Cheikh Makhtar Kébé daal di ko rek jiite ci moomu ndaje njiitu réew mi rafetlu na jéego yu kuréel gi ànd di li nga xam ne rek moo di RIS daal di rek taxawal. Euh, ak seen taxawaay ci euh, kilifa gi nu rek daal di def lépp ngir rek jëm ci ak defar rek maanaam di defar li nga xam ne rek moo di jikko yi ak bokk na ci rek euh, fexe ba wàllum ngóor jigéen ñu daal di ko rek dàq fii ci Sénégal lu jëm ci ngóor jigéen président Sall li mu xam ne rek mooy fek mi ngi nekk rek njiitu réew loolee du am file ci Sénégal mbokk yi li moo gënoon a fës ci xibaar yi Eh, diglen dajé benen bu ci yalla andé laata lol way len di ànd ak sen programme mu télé bu mag bi lé di Gambian Talents TV buri buri mu cëg mu ci lee saa borom amna ko yalla nako def ci yé mun tata famo million jama'a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 ak lépp loo leen namma biir Gambia diwtiir ak bagage yi ndekki yi ngeen soxla Kan Beef African Oriental Store andil na leen ko ci seen xefi bot yi ba tey amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitig bi nga xam ne lépp loo leen soxla mu ngi ci biir amal nañ leen maalo leket tame inde andi cuuraay waye it wuñ suñ goor yi nga xam ni den sen African Oriental Store indi na len garab go xam ni dina len delloo sen carton ba tay ñu ngi len amal Abaya, dal Abaya boo munti xalaat bu jigen ñu ko fi am waye it wuñ goor ñi amal nañ len xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nak bagage yi ni fep fo nek ci bir Canada bi ak US di ko mëna am am ndaxte ñu ngi len amal shipping African Oriental Store Afrika, si Amerika. fii si Everett Washington njaaxare jeex na